asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 14 février 2020 ñu ñëw ci likkaay yi moo xam sunu làmb la record wala Leewtoo TV bu dee yëglikaay bi di sunu làmb la moom la mu xëy ñëw mooy combat royal bi daal ci la xëy ñëwati nee na diggante Modou Lo ak Ama Baldé daal fi mu nekk nii moom boo bëggee dëgg-dëgg moom ginnaaw ba ñu arrêté Luc Nicolaï maanaam jàpp ko daal combat ba moom demul ci nga dikkul mbay laar maanaam daal fa mu taxaw la taxaw jógewu fa yëglikaay bi moo ñëw tey wax ko mu mel ni ki daal report maanaam combat bi ak ñàkk amam daal daa mel ni mooy xeeñ sunu làmb daal moo xëy tey ñëw wax lu mel noonu mu mel ni ki nag la mu wax raay dikkaat nañ ci ay waxam moom jàpp na ne daal fekk lig Nicolas mu ngi ci kaso gi moom pour situation bi décanté wu day jafe ndax raay moom jàpp na ne bu dul lig pour mbir mi am day jafe lool lu difficile la difficile lay doon loolu mooy waxi raay ba ginnaaw ba lig defee cinquante huit jours maanaam juróom fukki fan ak juróom-ñett ci kaso bi loolu la yëglikaay bi xëy tey ñëw wax nu ko ci diggante ama ak ka nga xam ne moo di Modou Lo mu mel ni kii nag ñoom mbër yu mag yooyu ba tey li leen di yot daa mel ni bàyyeegu leen de ndax nag seen jaaxleeg ñàkk ami combat ga daa ni daal mu ngay gën yaatu ci biir biir terrain maanaam daal di gagné terrain bi saa ñu xëyee seen ñàkk combat googu yëglikaay bi ba tey moo xëy ñëw wax ci kii moom bu dee war na am combat ay adversaire am ñett lañ yoo xam ne daal adversaire pire lañ ci moom muy garga mboose ka ca jëkk mooy Sa Thiès Yékini Junior wala Modou Anta neneen ñetti ñii daal ku mu ci am moom jàppal ne am na adversaire bu wóor a wóor a wóor loolu yëglikaay bi moo xëy ñëw tey dina ko wax bu nu demee record nag moom dañ fay fekk nga xam ne moo di Modou Lo ak jàngat boo xam ne Abou Ndour def na ko ci moom ci loo xam ne daal dal na ko ci làmb ci biir carrière am ci lu toll ci ay millions yu bari yoo xam ne daal mu maanaam boog dañ ko koo yoreel lu jëm ci ay xaalis yoo xam ne ci wàllum sponsoring lay doon toll ci soixante quinze millions maanaam juróom-ñaar fukki millions ak juróom yoo xam ne daal maanaam mu ngi koy topp ay nit maanaam bu arrivé ko ci carrière am ñu ameel ko ko moo xam combat ba nga xam ne nii da koo ko production woon moo ko waa suba teel ba ci digganteem ak Lac de Guiers ak yeneen bis yoo xam ne daal jaar na ca am ca ay jafe-jafe yu mel ni ki noonu mbokk ma nag di Papa Sow wala mag ji bokk ak moom parcelle moom record xamal nañu day moom li leer ba leer nag déposé na li nga xam ne nag mooy ca CNG ba ngir war am nag licence bi nga xam ne nii moo koy may mu bëre ci làmb ji loolu yëglikaay bi moo xëy ñëw tey dina ko wax mu mel ni ki nag licence boobu nga xam ne nag moom la déposé ci écrin bu bees boobu moom Papa Sow Xaadim Gajaga moom xam le ne ne lu mënti xew ca biir sunu làmb ne na loo ci mën a dégg daal metti na trop nag waaye lu mën a am mooy écrit boobu moom daa war a am mu neex ak mu naqari wala même bu neexulee sax it lu war a mën a am la maanaam écrit Papa Sow boobu lu war a mën am la ci làmb mu mel ni ki nag ba tey ca sunu làmb père Bekaay Mbaye moom mu ngi leen fay wax ay dëgg père Bekaay daal borom lay di tigir ne na leen li leer ba leer daal jàpp leen yéen mbër yi lépp lu yàq làmb ji jëm ci wàllu violence beeg yooyu daa mel ni kii yéen kenn du leen ci jiitu dafa mel ni yéen daal yéen a toog ci bànqaas bi ba pare yor seen jaasi di ko gor te bu daanoo yéen la ci seen ndig di njëkk am problème loolu mu mel ni mooy waxi père Bekaay Mbaye tey ci yëglikaay boobu nga xam ne nii moom moo di sunu làmb ba tey bu nu continuer ci yëglikaay bi di record dañ fay dellu siwaat cerno ka moom lañ fay fekk ne na moom ak lu mënti xew xew maanaam wax yi maanaam daal lépp danañ ko dajale moo xam ñi nga xam ne dañu ñuy indil xalaat boo xam ne ni noonu la wala budul noonu maanaam yëpp yu mu ci mën a doon dañ koy dajale ngir mu mën a mën koo liggéey daal ngir mu jur jàmm loolu mooy ay waxam ci yëglikaay ba nga xam ne moo di record loolu tey mu nga fa waaye ña nga xam ne nag ñoo bare woon ci semaine ba leenu génn wala ci weekend bii nu jógee moom muy Alioune Seye 2 ak ka nga xam ne nii moo di ñàkk jariñu donte ñoo bëre ña a bëre bu dee Eumeu Sène Junior moom nañ ko xaalis boo xam ne nii daal toll na ci deux cent dix mille francs Boursine ñu dagg ko lu toll ci cent dix mille francs ñàkk jariñoo ak Alioune Seye 2 moom seeni kase dañ caa jutul maanaam loxo lañ ca teg nangu ko yóbbu ko ñoom moom encaissé wuñu nii dara ca seenub reliquat ñaari dërëm jotuñu ko ci koo xam ne moom honoré la ñu koy def ci dimanche ji nu jëm mooy Malick ngoom ma nga xam ne nag moom mooy secretaire général comité central des arbitres Malick daal des koo fas yéene honoré Malick nag jàpp na ne honoré boobu ko jag si defal moom nee na li leer ba leer daal moom ci turam la jaar waaye arbitre yépp la ñuy honoré ci dimanche jiinu jëm mbir ma nag ne nañ léegi amatul Adrien Senghor gaal gi lañ ko jël yóbbu ko fa loolu la Malick Ngom wax tey ci journal bi di record ma ne ko waaw Malick bu la neexee ndax nag bi tax tey mbokkam ndax ñoo bokk ab yel tew askan yàggamaar boo ci teralee kenn jàppal ne ñëpp nga teral kon bu ñu teralee Malick ngoom ci arbitre yi yaakaar naa ne arbitre yëpp la ñu teral ñoom Mathiak mataar juufak ak Sitor ak ñépp nga ca biir ba ca daraame ma ca Cees kon arbitre yi jax la nga def rafet na waaye li leer ba leer soq ak gàmmu géey seen diggante bii teel naa commencé te teel a metti kii ne na ko samay kilo yu dugub su ma ko soqee ndax bu ma la ko saxalee di nga ko mën a wan mu ne ko duma ko wan dama koy tuur wala ma jox ko xar ya mbaa pitax ya loolu Thiam fa jaar la quinze mars lay am ca arène nationale soq gàmmu géey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 te ki yàlla def ma nekk ak moom chaque jour muy sama soxna di te nag maa ngi koy nuyu di ko ñaanal jàmm moom defe naa suñu mbëggee saa ñu xëy day gën a suuxatu quoi mais ay bés moom utuma ko ci ndax xam nga du tubaab nag je suis africain ba pare nekk sénégalais di bawal bawal yooyu moo tax ay valanteeg yooyu moom Babacar da cee faral di dox. kon ba war nga dem ak yaay de. waaw non waroon naa fa dem mais nag yàlla jaam ak pexem yàlla ak waaye chaque jour ñu ngi Saint-Valentin moom bu dee loolu mooy Saint-Valentin ñun daal chaque jour ñu ngi ci kon man nag yàgg yëpp ñëpp ñu ngi Saint Valentin ñëw nag si sunu lamb sunu lamb bi nag li ñuy xamal ne euh, combat royal bi dox si diggante Modou ak Ama Baldé nu rapport moom la gën a jege que nu taxawal combat boobu ki nga xam ne mooy ba nekk si Luc Nicolas Enco nee na combat bi mënul taxaw tànk que mu ngi si kaso bi Babacar. waaw waaw loolu daal wax nañ ci waxati ci waxati ci defe naa chaque jour presque ñu wax ci man nag la ci doon wax duma ci duma si jóg la may ñaan mooy Luc Nicolaï yàlla na génn ci kaso bi ba combat bi mën a am mois bi ko jàpp ci mois de juillet man daal loolu mooy sama ñaan te am naa yàqin ne suñu borom dana ko def ndax moo ne ñaan leen ma ma may leen ngeen sant ma ma dolli leen kon yàlla na yàlla def mu génn ba combat bi mën a am barke bi sallallahu wa prolongation nag combat ñàkk jarnu ak ki nga xam ne mooy Alioune Seye mu euh, mag euh, Alioune Seye numéro 2 Bécaye mooy nag moom te mu nekk euh, si émission L'Oeil du Tigre mu ngi wax tamit si journal bi nee na kenn deful violence lamb ji lu dul mbër yi Babacar waaw moom daa jàpp ne mbër yi ñoom lu lu jiin njaake ñooy njaak wax loo si mën a dégg daal am nañ ci part de responsabilité parce que li tax mooy que ni comme yow mbër mi ki ngay àndal di ñëw ci sa cumukaay wala ki ngay àndal di tuus des fois lu bëri ci moom lay jaare di am yaa ngi dégg kon defe naa ñoom it am nañ ci part ndax nag man mbër mi comme man la ñu fay maay bëree yaa ngi dégg li metti ci man lay daal li neex ci man lay dal defe naa bu ñu àndee ak loo ma mën di jariñ itam dinaa fexe nag ñu waxtaan ba ku nekk jéema a cadré wu xam la nga war def ak loo warul def parce que indi mbër damay wax ne chaque jour ki ànd ak mbër war na di ànd ak xelam ndax mbër ak ni muy bëree ak la mu war a yóbbu ci géew ba suy dem defe naa yow mi koy gunge di ñëw si biir géew bi Ndeye Coumba Fall war nga booy ñëw nga ëndaale sam xel ëndaale ak dal lamb ji nga topp ko di ko jàng benn par benn pour bu at bi nga mën ko wax lu tax mu mën a am njariñ waaye indi mbër ba pare di ko xeexal ah bay ba ay jamante yeneen di ci am defe naa kon mbër mi responsabilité boobu Bécaye mbay wax ne ñoom ci ñoom la wàccaat day naqaree dindi waaw ñi nga xam ne moom duñu fàtte saison bi mooy diggante ñàkk jariñ ak Aliou Seye numéro 2 ndax ñoom ñaar ñëpp seen xaalis mi ngi euh, nekk ci 15 CNG ñoom jotaguñu seen reliquat mais yeneen nga xam ne ñoom noo joué woon ñoom noo bëre woon grand combat diggante Eumeu Sène junior ak Bour Sine Eumeu Sène CNG dagg na ko 210 000 Bour Sine moom dagg nañ ko 110 000 Babacar muy nag lu lu bëre te yéeme waaw metti na moom metti na moom wax dëgg yàlla parce que lamb itam ak ni mu mettee ak lañ ca francs yaa ngi dégg loolu metti na waaw xëy na nag ñàkkul comme rek xëy na dañoo teg ay règle ñu jéggi ko xëy na laa foog moo tax ñu dagg leen bu dee ñàkk ak Alioune Seye ñu confisqué seen reliquat téye ko jotuñu ci vraiment nekk na loo xam ne metti moo tax encore une fois mbër yi man maa ngi leen koy ñaanal parce que suñu ay frère lañ suñu te ay nit yu baax lañu na ñu gën a ci li ñuy def bu ñëwee ci làmb gën topp règle yi loolu daf ci am solo ndax bëre daa metti bëre ba pare war a jot sa reliquat ñu ne la nangu nañ ko wala ñu dagg ba yow boo demee di jëli sa manager bu demee du fa fekk dara loolu vraiment neexul ci xol kon encore une fois rek na ñu gën bu baax a baax a baax ci ni ñuy doxale ci biir ba léegi combat bi euh, amaguñ ay combat te saison bi juróom benn we rek moo des ki su mel ñoom Gris Bordeaux Balla Gaye Bombardier Eumeu ñoom ñëpp Tapha Tine ñoom ñëpp li ngi toog di xaar combat waaw xam naa daal moom loo ci mën a dégg mois de février baa ngi dem rek te loo ci mën a dégg heure bi daan na fekk yenn combat yu mag yu bëri taxaw ah, ba fii ñu koy waxee nii nag mën nañ ne combat yu mag yi ñuy tuddee combat yu mag yi ci taxaw mooy comme ni ñu ko xamee léegi Modou Lo Ama Euh, ki nga xam ne ni moom mooy euh, Siteu ak Papa Sow mais à part gisaatuñu beneen bu taxaw ñu ngi ñaan yàlla nag balaa février bee dee ñoom mbër yooyu ñu lim yëpp seen combat mën a taxaw. Mm-hmm. dina am aussi mi ne ki nga xam ne mooy Sa Thiès ak Yékini Junior ak Modou Anta neen daal seen potentiel adversaire kenn dong la muy Garga Mbossé. waaw Garga Mbossé maanaam ñoo ñooy ay adversaire am wala moom mooy adversaire u ñooñu waaw loolu moom c'est normal parce que muy diggante mu Modou Anta làmb la joo xam ne ni ju war a mën a am la ka nga xam ne ni tamit moo Yékini Junior yaakaar naa ne bu fekkee làmb boole na leen combat bu neex la Sa Thiès kazalika naka noonu suñu jógee nag suñu laam dañu dem fi nga xam ne mooy record record mi nga xamante ne nag léegi carte gi leer na Papa Sow déposé na pour mu am licence a bëri ak ki nga xam ne mooy Siteu si écurie bu bees boobu noonu waaw olof na nag moo wal mburu kon faw mu yaa ngi dégg dëkk ba muy gane ji nag mooy jàmbaar wrestling academy bu fa bëggee gane ji nag faaw mu dagg licence bu bëggee wàcc ci Brexit kon daal ñu ngi koy waxaat que ni licence ba mu dagg ah dagg na ko làmb jaa ngi noonu yaakaar la am ba def loolu yaakaar jooju xëy na nag yàlla na ko gis yaa ngi dégg waxuñu ne nag yàlla na gañe combat am déedéet waxuñu loolu de ñun ñaan lu ñu kenn mu gañe sa combat ndax ñoom bëri suñu ay frère lañu la ñuy wax mooy que rek la tax mu sañ ci ba lañ ko ne yàlla nañu fekk loolu ci écrit ba yaa ngi dégg la ca des nag digganteem ak Siteu moom làmb joo xam ne nii dañ naan rek que le meilleur gagne di leen ñaanal yàlla yàlla yóbbu ñu sa bisu combat bi di le 5 avril. Babacar nag euh, kii nga xam ni euh, Abou Nour wax na def na tey benn jàngat nee na Modou Lo entre les cas sponsor ak concession neen daal mi ngi daw si ginnaaw 75 millions yi nga xam ne promoteur ni nga ko yola waaw ba tey muy lu méttee métti xam nga 75 millions du tuuti juróom-ñaar fukk ak juróomi ci ay wàllum reliquat sponsoring lu taratar la ah nekk na mbir moo xam ne nag mbir mu doy waar la loolu nag li ci li ci am solo mooy pour man wares na ko mën a gën a xoolaat contrat yi cay nañ koy seere ba yu mel nii war ci mën a am bañ a am parce que comme lu ñu wax rek mu loolu tamit nekk na mbir boo xam ne ni bëriwul luñ koy dégg muy wax ci yenn yi ndax lii tey bu doon Babacar mi lañ koy yoral moom ah ba tey fëgg naa wax naa moom ñëpp ah déet daa mit waxuma la 75 millions Modou kay xam naa ne <laughs> moo daal noppi na daal laa ci xam waaw Babacar journal bi aussi mi ngi xamal euh, aussi sargal Malick moom bi nga xam ne moo war a am dimanche Malick Ngom nee na nag moom décoration bi nga ko nar a décorer nee na nag gis na arbitre yëpp si si moom daal si décoration bi si jaar na si loxoom pour mun a décorer arbitre yëpp Babacar maanaam daal nday kuma si kàddu wolof gu leer moom maanaam honoré bi ñu ko honoré maanaam delloo njukkal bi ñu koy defal dimanche dañ ko jaarale ci moom mais pour arbitre yi nekk ci làmb ji yëpp la loolu nag mooy li war am parce ñoom ñoo bokk milieu ñoo bokk lu ñuy def buñ ci sargalee kenn rek ñëpp lañ sargal Malick nag defe naa sargal ko ci làmb lu mu mérite la parce lu tax mooy li ci bàyyi ci yar itam mooy tax kilifa gu ne nga mën a toog moom ku ne nga wax ak moom te Malick loolu gis nañ ko ci moom te loolu tamit gis nañ ko ci ñoom arbitre yëpp mais nag moom dañ ko gën a ñu ñaan yàlla rek loolu nga xam ne moom la ko jag di defal yàlla na ko jik di ci profité di nuyu kuréelu arbitre bi nekk si làmb ji yëpp di wax ne daal Malick encore une fois daal nit la ku baax koo xam ne mérité na sax lu ëpp loolu pour man Babacar ñu jeexale na ak Thierno Ka premier vice président du CNG moom nee na nag mi ngi jël mi ngi jël ay avis ak ay euh, suggestion pour daanu xool nu ñuy jéem a dindi ak violence bi si biir làmb ji Babacar. waaw loolu moom am na solo violence bi moom lu ñu ci mën a xam mooy yàlla na dañ. waaw wala bu mënta dañ itam na wàññeeku boog ba des 1 pour sax waaw parce que violence amul njariñ ñi koy def it nañu xam ne loolu ñuy def amul benn sant moo xam violence ci kàddu la moo xam violence ay jëf ak yu mën a doon amul njariñ mooy profité di ci nuyu waa groupe wax ne ñoom tamit am na part bu ñu ci doon suyee bu baax a baax a baax xëy nag xawoon nañu xaw a stand tuuti ba tax yu bëree bëri ñu commencé gisaat mais yaakaar naa ne dimanche ji ñu jëm ci turu président bi Massamba Dieye xamal na ma ne dimanche ji ñu jëm fa nga xam ne mooy ca arène nationale bu ñu xëyee woote nañ fa pour daje parce tamit taal bu tëye taak noonu lañ koy uppee te yaakaar naa groupe baax am na rôle bu baax a baax bu mu doon suyee ci làmb ji ci wàllum non violence bi mm. Babacar nag si cadre sensibilisation boobu lañ leen di tàggoo leen jox di daje lundi incha allah mais balaa boobu mooy nuyu suñu yaay meesoo nuyu sama doom Mouhamed Diouf nuyu Astane Chéri Khadija Diallo du ñu ki nga xam ne mooy Abdou Gueye Baye Fall jàmmagan papa yi si tey depuis États-Unis maa ngi koy nuyu nuyu ki nga xam ne mooy Asek Chéri Khoudia Seck depuis Italie di nuyu ki nga xam ne tamit mooy Ramos Ndiaye naan ko gis naa kaddu bi rafet na lool yow yàlla na sa jàmm yàgg Ramos ñu ngi lay bëgge Ramos ana suñu kado ñun suñu ka <laughs> ah Ramos. mi ngi ñëw. ah kon alhamdulilah Ramos maa ngi lay bëggee waaw le capitaine c' est le capitaine des capitaines am nga kuñ tudd Ramos moom Ramos Sergio mooy capitaine des capitaines kon Ramos Ndiaye yow yaay capitaine u capitaine yi maa ngi lay nuyu di nuyu Fallou Petersen moom tamit Jibi Bamba maa ngi koy nuyu di nuyu tamit ki nga xam ne nii mooy Issa taximan maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax di nuyu taximaan yëpp nee na man maay taximaanu Babacar dëkk dë dëkk Réfane jiga tamit maa ngi koy nuyu nekk fans club Babacar démb mu amoon ngénte ca Réfane fans club yëpp teew fa àndoon ak Mbaye ak Loum ay ñoom grand bañik kon jiga daal yàlla na sa jàmm yàgg liir bi yàlla na dunte am nday ak bàyyi di nuyu képp kuy fans club Babacar rek ak fans club Leewtoo bi ñoom Cissé ngaari ngarmeew ak ñoom faat ji rakku bombar képp ku ñuy béggee ñu ngi lay ñaanal jàmm xajiroos du ma la mas a fàtte Asi sama naar bi kenn du yow maa ngi lay béggee tuuti yaay Sarr jàpp te bàyyi yow it mën nga ko trop te macha allah gor nga maa ngi lay nuyu di nuyu ñoom Cédric ak ñoom di Tarawo rek Kempes ak Abdou Touré ak Beuz ak waaw tey daal comme noonu ñu ko waxee comme ne nañ Saint-Valentin la Babs nag moom xam nga lu muy wax chaque jour rek maar maar bésal fexeel ba bés bu ne ngay def Saint-Valentin bu la kenn tënk ci mbëggeel mbëggeel saa yoo xëyee daa war di bees bu dee dëgg la ci yow. ba leen incha allah.